am ndax man dama leen di topp di leen feeñu sax sañ naa ko di def. di feeñ ci gént dëgg la leen di feeñ. démb nag feeñu nga man a man boo demee teel man a dematuma. <laughs> Papa Ousmane wax la daf ma daf ma gént dama lay nag naan la ñëwal xëy si <laughs> ayca euh, en tout cas euh, sénégalais yëpp ñoo ñoo ñoo ñoo ànd safoo leen euh, man moom mën naa ni maay seen fan number one alors Nabou moom lu ngeen wax ci moom rek am na lu des. baax baax. yomb na mais sax ci moo moo jafe mhm. elle est d'une gentillesse ci xol nag munoo sax munoo sax comprendre yàlla na kuyoo yàlla fayal man moom wax dëgg yàlla bu ma waxee mu ne yaay sama taaw bu jigéen euh, alors euh, dama koy ñaanal rek mhm. cat cat baaxul te yàlla mu ngi ñuy booleek ay nit yu baax yoo xam ne dañu bëgg te yàlla rek tax alors yàlla na yàlla gën a sàmm euh, diggante yi defal ñu jàmm ju bare bari moom it euh, yàlla gën a yokk liggéeyam te nit ñi souvent dañ koy ragal boo nee nabu parce que xam nañ ko moom Thiané Diagne nit ñi dañ naan ah dañu ragal ay ay njëg yu cher la ñuy mm, mm, jaayee mm, euh, te ay styliste yu mag lañu keroog dama sol benn robam dugg ci kër gi bàyyi ne ma moom daal nabu danga moom bu la ñawalee da ngay xam ni styliste moo fa jaar alors nit koo xamante ne xam na li muy euh, def ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax a baax di la remercier ci toppatoo bi ndax xam nañu def tele c'est pas facile waaye euh, ni ngay ànd ak ñun moo ñu moo ñu njëkk a neex et puis lu lu lu lu jarab euh, préciser moom patriote bu mag la bu mag a mag a mag a mag a mag alors je te fais un gros poutou merci beaucoup te lay daggal ba mu baax. jërëjëf ajalaatu da nga koy dem mu mbaqal la ko naan la xaar comme teel a jëm xaar ma mbaqal ko <laughs> ak moo ko nangu nab rek. jërëjëf <laughs> ak Wariyos. ma nuyu te Wariyos mi ngi waaj ñëw. Wariyos couture. mi ngi waaj a ñëw moom it waaw ah, Wariyos mu ngi waaj a ñëw. mi ngi a ñëw ci plateau bi moom tam. très bien ñu yegg seeg moom nag wax la moom kon couture. ku nara a bëri histoire. ku féroce lay doon waaw ku féroce lay nekk. naka nu ko nu ko di kii nu ngeen ko waxee sax ku xeere. ku xeere koo ko ku xeere lay nekk. xeere la ah? war a nekk <laughs> ah. xeere ba mel ni Bassirou Mané sunu ji. ñu koy nuyu bu baax a baax alors également. Euh, euh, Ibrahima. ñu ngi lay euh, nuyu di am mbégte ànd ak yow ci plateau. kon Ibrahima nuyoogul woon. chéri ngoone déclaration d'amour bi Ibrahima def woon. maa ko may sama temps de parole maa ko ci joxoon toppal ko ci ne ko demal. waaw yéen kay seen sëy bi nag kon yàlla na seytaane xeb doole. amiin yaa rabbi léegi na caméra bi na caméra bi jël ñaari alliance or yi ñu xam ne xam nga man foofu na ko jël ngoone sa bosa gi ah ñaari alliance alliance yeeg alliance na alliance bi ëpp large large large com com jëlal déclaration bi. com nag réeroo dafa am ci suñu suñu ah. jàkkaarloo bi. ah waaye yow laa yow li ngay raté ni lii. ba jàmm la si koy jël mais ñun amuñu ko ci retour bi. dara ëpp. bi léegi boobu kese bu daal mi ngi nii xanaa bu ëppoon day wadd. sur mesure ah bu ëppoon nii day wadd sur mesure ëppoon. wuy yaay daa ëpp. yéen alliance bi daa ëpp. Iyane Farouk ba pare alliance kenn du ko kenn ko takk fii ko takk fii seen yoon nekk non bàyyil rek takkoo leen takkaanoon waaye yéen yéen lu ma iñaanee sama bonheur wan ko wan ko internautes yi ñu gis ko wan ko Cheikh Bara Ndiaye ak ñoom Assane Mesere gis ngeen alliance bi or la de kii caayan gis ngeen xam ngeen ne kii la kon boog laf cat Cheikh Bara day nelaw heure bi day hmm? tele yow day wedd kontaanoo leen. Ah, doo leen kay ah, kontaan nañ kay. waaw ah, doo leen kay beaucoup de bonheur. iñaan iñaan yi wéy la. fi ngeen di fi ngeen ngóode lijjanti sa loxo bi. ngóode lijjanti na boppam ba am jëkkër ngeen ngeen toog fii rek ngeen bokk ba iñaan. dëgg la bu la ko kenn xañ nag jëkkër dafa jafe bu la kenn xañ. man du ma dóore du ma saage loo bëgg loo bëgg rek ku ma ne salaamaaleykum maaleykum salaam waaw boo boo dematee palais ba ñi ko xool ñëpp ñu xam ne nekk nga ci buur ah, ah mhm. na caane caane Diagne dina ñëw boole nga ko ci ñoom ngeen dem ba Touré bi ma nekkaloon Mali yëgal nga leen sa robu bari la koy ñëw mm. waaw wax naa ko ko wax naa ko ko keroog suñ coom nee fi mu dakk jaaro ji jaaro bi ma ne ko ah mu ñoom kay nee na laaju ah, yow bi ex xam nga ji nga nag kër ku nekk li la dal loolu la rek <laughs> xataraay gi yëpp loolu nuyoo bi sa jox naa ko merci li mu li mu waroon nuyoo naa ko jox naa ko yi la safoo la seetaan maa ngi leen di nuyu ci barke Ngone leen ziar leen jox seen ah, wàccuwaay ah, damay bañ a jooy quoi parce sama xol bi dafa sedd tellement non lii du mbëggeel dafa neex yéen it xam nga ay Cheikh Bara du ma ay Cheikh Bara du ma seen morom ay Assane Mesere yooyu du ma seen morom kon maa ngi leen di nuyu datu mariage bi rek lañ leen di annoncé semaine bii di ñëw. incha allah yal na yàlla di nuyu waa Tëngéej ah, yëpp jàpp ngeen date bi. ah kañ la kañ la date bi. date bi date la. non est-ce que duñ ko dóor décembre rek ñu bàyyi ko ba décembre. ñu jël suñu 31 décembre mooy sama anniversaire. waaw 31 décembre. kon nañu ko def waaw ñu dóor ko 31 naka jekk ma xam ne 31 décembre. 31 décembre waaw ñu ñu dem ba 31 ah, décembre. moom mooy genre lure yooyu nga xamante ne ah, dañuy traité ak yow dañu lay dëbb dañuy dëbb waaw ba 31 décembre dañuy dëbb at bi ba metti bi fin bi ñu dudd nga garaawaale Ibrahima xaar damay waxtaan ak yow man sa jigéen laa xam nga. xam nga xam nga man xam nga man dama laa fonk. Mm-hmm. maa ngi yow ñoo bokk sunu sunu sunu tëngëj ak sunu barni mm-hmm. ah euh, wuy ma nii nga def nii baax na jigéen da nga koy sécuriser. Mm-hmm. boo bëggee jigéen. maa ngi yow waxtaan micro yi fay na. fay na fay da nga koy sécuriser. kon ni nga ko takkalee bàgg bi baax na. waaye décembre dafa sori. te kuy dafa sori dafa sori. te kuy non xaaral maa ngi yowee waxtaan moom déggul li may wax maa ngi yowee wax mm-hmm. ñooy wax ci suñu tëngee ak sunu bar ñi mm-hmm. jigéen ba nga koy sécuriser mm-hmm. te kuy def lu baax danga ciy gaaw balaa cat di ci dugg tey la àjjuma mm-hmm. suba ci samedi bi mm-hmm. yónneel say mbokk ñu may la ko kay mu nekk sa jabar ci farata yàlla sunna si Muhammad déglu ma rek xaaral ma expliqué non dama lay dama lay expliqué xam nga mariage bi ay caaxaan mais xaaral ma pare wuy ma mm-hmm. Ngoone Saalum déglu rek li ma jot ci ay déclaration dafa bari fii ak décembre lu ne xaj na ci xuloo xaj na ci seytaane dugg ci diggante bi xaj na ci yàqkat yi xaj nañ ci hmm. yaa ngi dégg nit ñëw fëlee fële takk duubal alliance bi mu jox ko ci cinq mu takk fii ba fii ba pare takk ko ca saasa ñu muur ko mu sëy ca saasa loolu mënta nekk ci réew mi tey ma moom fii la yem ay Cheikh Bara moom Cheikh Bara moom si ab site la toog rek sànni missile moom Cheikh Bara Cheikh Bara benn kurus benn peru kurus la lay sànni dootoo wax dina ñëw Cheikh Bara Ndiaye ñëwal si plateau ñëwal si plateau matinal bi bu la kenn kon dégluwoo li ma la wax nii. non dégguma ko sax. bu la kenn teg pression wuy ma bu la kenn teg pression. lan lañ wax nee nañ boo bëggee da ngay gumb da ngay tëx da ngay lu li nga wax dégguma ci dara. merci jéemuma ko sax dégg. lu saf uh-huh. xale bi rek saf na ma bisimilah doxal leen. ñu ngi nuyu waa Tëngéej yëpp xale bi dina la taraay de bu Abdoulaye. jërëjëf. Euh, ñaanuma ko yàlla internet nag ñu ngi ñu ngi cotiser ci seen biir nee nañ dinañ la jox 10 millions plus iPhone ak 30 tara. iPhone o oh, iPhone 30 Babacar Ndiaye munoo <laughs> baax. 30 la teel bi kañ lay am. ah dindil 30 bi rek mën naa ne 10 millions plus iPhone plus Tara. tere ah déedéet waa joxe tere ba ba si juumaa jàppale. ah <laughs> yee. du ngeen du ngeen xalaataat ci terrain ba ci kanam. te ngeen génnee terrain bi génne leen terrain ah, bi. foos yéen a te même oto yi da xool da bokkul ci oto yi. <laughs> oto yi xalaataat leen bu baax a baax a baax. Ah, eh, eh. ah wayit nag ah Ibrahima. waaw Fallou sama nijaay sama nijaay dëggantaan sama nijaay dëggantaan. macha allah mook sama yaay ñoo bokk benn yaay. valide na valide na. alhamdulilah mooy tonton Yéli mu ngi nii ci commentaire yi. ñu ngi koy ñu ngi koy Yéli waa sama nijaay la. tonton dama bëgg dinaa ko seet. tonton d'accord tonton Aziz Baldé rek seen waa kër yóbbu ay suukaru koor ay ñoomin seen samay teranga. Mm-hmm. ñu gën a jàpp ci ngoro li xam nga foowu ma. suukaru koor ma foowu ma moom. waaw man wéeru amul quelque part wala déggoo ngóode sa nijaay bii moo ma bëgg mi ngi toog di la seetaan non déggoo bu may pare di loué taxi di dem di yóbbu non moom nekk fi nag nekk fan la nekk mu ngi extérieur mais dinaa la jox numéro téléphone ah, waaw jox ma numéro moom sa bëggeel gi wóoru moom nee na lu mel noonu li mel noonu man bëggee naa ko noonu baax na mais Sénégal bu ko woote bëgg naa noonu Sénégal a iñaan gars yi xale yi jigéen daal dañu hmm? nag boo toogee amoo ko lan fii laa leen noboon ngeen di tiitaru ba ma bàyyi leen fi hmm. jël ah, ko ngeen di cëppi cëppi man kaay ma wax la fii di cëppi cëppi ngoo ne dëggal boppam ma jël ko coow li coow li jeex na takk oh, dëgg la wax nga dëgg yéen ñett ñëpp laa bëggoon jël ngeen fii ne di bajantu ba ngoo ne dëggal boppam le ziar bégee bro jaajëf ça va tu vas bien émission bi moo ma jaar jërëjëf Ibrahima. fii doon na ñaari première daamu sëñ Bas. Mm-hmm. Ousmane bu bul dem toogal ñooy fii d'honneur yi. ah yow mariage boobu dina rëy de. non méridien lañ koy defee. méridien waaw. ah waaw mm-hmm. Adja Seck méridien lañ koy lañ koy wax. mais il faut ñu def sur invitation parce que ay infiltré mën nañ ci am. Mm-hmm. opposition bu bees mën nañ ci ñëw yàq waaw waaw ku dul partenaire du ñëw Omar Diop nee na sëy mooy taaru jigéen wax dëgg yàlla. ku dul partenaire ah, mariage bi kat foog ñu invité ñoom Abdou Mbow nag. Ah. ankañ ah, ñoom Abdou Mbow dañuy ñëw ci mariage yàlla bu sëy bi barke. Thierno Bocoum laay invité. tamit day ñëw Thierno Alassane Sall day ñëw. Mm-hmm. Mm-hmm. ñaari Thierno ak Guèye Dany day ñëw ñooñ ñëpp si ay càmmañ lañu dañuy ñëw. dañuy ñëw au lieu waa eh, RTS dañuy ñëw ñoom maam ma naka. mu am mayaar borom fulaar bu xooxa bi borom fulaar bu xooxa naa ko. torti ninja waaw torti day ñëw ñu ñëwee naan Ibrahima Ngoné yàlla say bàkke dañu naan gis nga Ousmane Sonko xamoon naan njabootam lay boole la moo tax ñuy mariage fii. di yàq di yàq affaire yi. non ñooñu na ñaareel opposition moom nangu na ñaareel non Ngoné mënul bañ loolu non sa jabar laa moom nangu na ku ko fekk si amul problème. non loolu nekkul problème. amul benn problème ngoone nangu na lépp lépp lu ndaw man boo fekk si wul du ma sey. aw bi de ngoone rek lay wax xàmmeetul aw bi ku ci tudd ngoone. mais xeetu yàq xel yi mooy eh, lan la def ba pare ba pare sukkaru koor sukkaru koor ngoone ñii doo leen woon alliance bi seen xol yi bon tuuti. waa léegi comme dañu mer ci alliance pour ñu génn ci ba parenthèse. xam nga kii ba pari ba pari laa ko ba pari laa ko commandé indil la ko. leer na sa bopp GP bi indi ko. wala yaa ko wax waxuma dara man su amul maa ngi aye si kaay ma wax la bëgguma man yow yàlla moo dogal ni loo bëgg bëgg naa ko mii noonu du dëgg lu ma bëgg rek bëgg nga ko bëgg bëgg naa ci loo ne ci laa nekk noo ko bëggee laa ko bëggee du dëgg overdose nag maa ngi lay nuyu bu baax émission bi lu fi am rek euh, overdose est en train d'écrire waaye ñu ngi lay nuyu ma ne ndijaay mooy maye te ndijaay am valide na ko rek ah, ah. jeex na mu ne nga fay micro mami baa yaa ngi ci jàmm hmm? ça va alhamdulilah ah yaa ngi suivre ah très très bien léegi laa lay bëggee kay di la ziar maa ngi lay ziar léegi nii bàyyi bu ma eh. génnee émission woo la incha allah. Mhm. waa kay dose dose. ah jërëjëf dose. jërëjëf. Ah, ah, kan la ah, bi. waaw waaw si si na boo ngi lay ziar tamit na boo ngi lay ziar. waa kay dose kon xam naa ci kanam incha allah. incha allah waa kay over merci. jërëjëf ajaratu Ngoone Ibrahima euh, jaajëf ajaratu mami noo ko defee rek noonu la dëgg yàlla mm, yow moom. boo ko jàppee ni war nañoo mën a woo over rek ñu woo ko jërëjëf. mais ngoone ban ban waykat nga bëgg mu woyal la ko. Euh, koo bëgg mu ñëw. animé animé koy aj ba émission bi jeex. animé ko. animé bàyyi naa la ko parce que fu mu commencé. na teewul tànn sa waykat léegi rek. tànnal garaawul. loolu yëpp amul problème bi bi Sidi Diop di way quelqu'un qui t'aime. quelqu'un qui t'aime. waaw boobu neex na ma de. yaa ngi ko bay après kii may la ko ah, technicien bi may la ko baax na. jërëjëf Aïcha ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax a baax bu kunta li ngay bind ah lii yàlla na jur jàmm tey <laughs> jërëjëf. jërëjëf yàlla na cardiaque fi mu euh, toog balaa ñuy def bëggoon naa yàlla na cardiaque fi mu toog. bëggoon naa ñëw ci lu important balaa ngay def transition muy euh, les amis de Fulbert Sambo. waaw. ci kanam tuuti 10 heures. Mhm. dañu amee euh, ndaje ak taskatu xibaar yi. waaw incha allah wax ci euh, par rapport ak euh, li nga xam ne peut-être jot nañ ko wax fan yi mhm. ak li nga xam ne waaw te dinañ ci waxtaan incha allah ci waxtaan mais tey ci 10 mhm. heures nañ jàkkaarloo taskatu xibaar yi incha allah. incha allah incha allah très important jërëjëf ajaratu Ngone bu Ibrahima Azret ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax a baax ajaratu mami ok ni ngeen euh, annoncé euh, les couleurs de cette émission noonu baax na xam ngeen ne Café Actu nii lay tëddee la revue des titres la ñuy euh, dooree toftal ci cas sur cas ànd ceeg ajaratu Ngone ak ci commenté la ñuy jeexale Pape Ousmane Cissé dinañu rejoindre Imam Dramé dinañ ànd ak moom ci waxtaan bi alors tout de suite la régie dañuy dem revenir sur le plateau daal di ànd ak yéen ci li xëti xëyee tey